Bienvenue sur Salam salaam salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum mbokku àdduna salaamaaleykum mbokku Euh, tey jii ba léegi tey dañuy ñëwaat ci kàddu askan bi bu ñu kaddu askan bi mooy tey li la neex ak li la naqari kiñ taxawal benn grand la bu tudd Ndoof Ndoof nag la gars di wax apo dinaa ko laaj nag ci biir question bi lu waral Ndoof kaddu askan bi li la neex ak li la naqari mais balaa boobu Ndoof dama lay bàyyi nga nuyoo Ndoof maa lay ziar. daloo ziar amoo. da mhm. nga lay ziar di ziar waa Sénégal gi yëpp. Euh, di nuyu waa seen YouTube bi Salam Vision ah. di nuyu jawrin bi Samsek di leen jaajëfal bu baax a baax. tey jii su may ñëw tey jii ci Ndof tey li ko neex ak li ko naqari tey ci jamono ji nga xamante ni mooy nguur Macky Sall bi lan la. li ma naqari ci Macky Sall bi bëri na de. <laughs> ci foofu laa bëgg a ñëw ci tuuti la mooy la ci neex daal nguur Macky Sall donte métti na ñu ne nañ métti na ñu ne nguuru Macky Sall neex na tey nguur Macky Sall tey lan nga gis ni carrément instant yi dafa la métti carrément ci loo xam ne métti na la daal. Euh, période bi moom ndox mi ci la bokk. ndox mi ci la ndox mi bëri na trop sonal na nit ñi ndax fii nii gisoo benn ndox mais am na ñoo xam ne tey ñu ngi si biir ndox mi waaw ndox mi moom bokk na ci moom bokk na ci li ma métti lool lool war nañ jël ay motuwaay jële fi loolu bu loolu weesoo li ay fas lañ may man dawalkatu fas laa tey ji dugub ak ripaas ak ngooñ egg na foo xam ne mosu faa yegg mosul romb juróom dugub ripaas mosul romb juróom instant ñu ngi ci ak ay quatre cent et quelque. xaaral xaaral bi doon jar deux cent cinquante xaw ma deux cent vingt xaw ma deux cent quinze léegi ñaar lay def léegi. mu ngi ci deux cent mu ngi ci kii euh, quatre cent quatre cent la woon wàññi nañ fukki dara mu ngi ci trois cent cinquante mosul am. c' la première fois moo koy gis ba may 2008 ba léegi maa yor fas mais maa ngi koy soog a gis. ci nguuru Macky Sall. nguuru Macky Sall waaw. mais loolu nga yaakaar ne tey jii ci Macky Sall moo yokk dund gi war a saa yi nii ñeneen Euh, mën na nekk ci moom mën na bañ a nekk ci moom ndax daaw daaw xam nga ne nawet amul daaw nawet amul dugub bëriwul xëy na loolu moo indi problème bi manquement beeg yooyu xanaa ñuy yokk euh, jumtukaay yi rek dimbale béykat yi ñun ñi nii waroon na nañoo fekk alba ñuy béy bu béy bi jeexee ñu ñëwaat mais mënoo ko li nga mën a am fii mënoo ko am fale suuf si baaxatul amoo ay moyens yoo xam ne di di nga ko béyee. waaw tey jii ma gis ni exactement da wax benn affaire bu garaaw. chaque euh, nawet yéen da ngeen daan bàyyi fii seen saret baay kook ñeneen dem seen dëkk bàyyi mais tey ji maanaam dund gi lan moo leen ci metti ba tax léegi nawetu ren bi ñu bëri demuñu nawete ji no toog Dakar du ren loolu yàgg na loolu yàgg na man 2007 laa gëj a béy parce que Dakar fii li nga fi am li nga fi foraatu mënoo ko am si nawet fële amuñu moyens yi xëy fii di lijjanti sa journée di jàppale say njaboot waaw moom moo ñu sonal quoi parce que bu doon da ngay dem fee suuf si baax na nga mën a béy am li nga war a am kon heure bi ñu ngi fale di béy boo béyee sa dugub ak sa gerte bu doy après defar ko ñëwaat mais instant bi boo demee foofu toog fii moo ko gën junni yoon toog fii moo ko gën junni yoon amuñu moyens yi am nañ suuf si mais suuf si baaxatul suuf si dee na amuñu moyen daal pour béy te loolu état da cee war a taxaw. jamono ji nga xamante ni euh, ci wàllum nawet bu ñu xoolee tey jii lu ko tàmbalee Pikine ndakaaru géejawaay parcelle foo tourné instant tali yi gars yi gas nañ ko ay kamb yoo xamante ni ba fu ndox war a euh, jaar pour war a dem ndox ma dafay càng ba ci fan koo xamante ni maanaam dafa am lu mu doon liggéey tombeeg si biir këram muy taa muy dem di ngàcc ndoxam ci la ko courant daal di laal comme ni ko nit ñi waxee mu jaaree fa faatu tey ji ñooñu nga xamante ni tey ji maanaam jafe-jafe yooyu noonu dañ koy dund tey ji état bi tey ji ban lancé nga leen di lancé wax ne instant yi war nañoo gëstu maanaam néew di non fi mu toll nii moom bu dee côté travaux yi moom loolu moom dañ ko war di jël par étape luñ songati door ko mu daanu ñu xooli leneen mais dañuy laal fii laal fee laal fee xoolal géejawaay gi BTR bi ni mu yàggee doo xam lan la parce que amuñu niveau boobu mais ñun ci suñu xam-xam bu gat rek la ñuy waxee yaa ngi gis BTR bi bañ ko tàmbalee ba léegi demul fen boo biñ ko tàmbalee ba léegi demul fen tali bi jógee Kër Masaar ñëw gis nga ko travaux yi dañuy laal fii laal fee laal fee après bu nawet ñëwee day indi jafe-jafe dañoo war di songandoo benn dóor ko mu daanu après laal songi feneen mais da ngay gis ndakaaru bi yëpp lañ gasan ah. léegi nga yaakaar ne loolu loolu léegi nekkul comme maanaam campagne yu élection yi passé xam di ko campagne ngir bëggaat ci troisième mandat wala yeneen ak yeneen nga foog ni du loolu mën na nekk mën na nekk mën na nekk parce que politicien moom dafa bëri pexe doon de man politique bëriwuma si xam-xam li ma ciy wax bëriwul gaa ndax intéressé wu ma ànduma ki koy def defuma ko yaakaaruma si len tamit waaw looloo tax côté boobu moom xam naa duma ci mën a xuus quoi. mais Macky Sall troisième mandat yéen yéen askan bi pare ngeen pour may ko ko wala pare wala pour may ñun askan bi non man moom damaa am si moom mbeteel moom Macky su ma waxee rek te yàlla tax. da am ci moom mbetteel. waaw bu ma lan moo la defee ba nga gën a am mbetteel ci Macky. li tax ma am mbetteel ci Macky Sall mooy dañoo bokk benn raison fi ñu dëkk. man maa ngi dëkk euh, village bu ñuy wax Sorokh mu ngi région Fatick commune Niakhar Sorokh dëkk bu mag la boo génnee Niakhar moom nga si teg boo génnee commune bi moo gën a rëy ci commune bi ba léegi mënul am courant. mais man Macky yëg na ko xaw ma yëgu ko. mais Macky Sall gars yi nee nañ ñoom Fatick la dëkk ñu ne Fouta la dëkk léegi ñu dem ba ci biir jël Macky sàll fii la ko euh, Fouta ba léegi boo waxee da naan la nee na ka bandum léegi yéen Macky Sall démb barki Dembo Ndiaye ñu bari ne nañ Macky Sall waa Fatick la mais guddi gi ñu toog boo xëy Macky Sall génnee nañ ko biir Fatick léegi dëkkatu Fatick léegi mu ngi dëkk biir Fouta <laughs> yow instant yii nii nii nii yow loolu da lay def kaa wala loolu du la def kaa. non Fatick la dëkk la dëkk. waa Fouta de nee nañ Fouta de. non ku ne da ngaa am foo foo foo foo foo kiiyee nu mu nu mu tuddati foo jóge rek foo cosaanoo mais Macky moom lépp am Fatick la waaw fan la defee carrière xaw ma fan la juddoo wóoru ma mais fa la jàngee defee fa lépp boo fa demee këram nga fa. defe naa lim Fatick njëkk na faa nekk euh, kii nu mu tuddati nekk na fa mais je crois am na am na lu mu fa nekk foofu foofu mooy léppam Fatick mooy léppam mooy base politique am mooy léppam. mais léegi waa Fouta nangu nañ ko xam nga dañoo ne nit mbokkam. ndakaaru gi boo fi yàggee loo mënte am da ngay dem di ko séddoo ak sa waa dëkk. ah mais waa mais mais waa Fatick moom jooy nañ ci Macky Sall ba sonn mais Macky Sall wuyu leen. ah ñun de ci lañ bokk sama dëkk ci la bokk dëkk bu ñuy wax Soro. mais mais waa Fouta ñoom jooy nañ Macky Sall wuy ji leen. loolu doy na waar <laughs> loolu loolu doy na waar xëy na xëy na xëy eh, est-ce que nekkul nekkul ñi ñi da ñi ko dàq politique la ñoo nekk côté Fouta est-ce que loolu tamit da ci joué. waaw waaw mais fii moom ñi dàq politique instant ñu ngi Fouta. boo xoolee tam ponkal yi fa lañ nekk milliardaires yi fa fa fa fa lañ nekk. mais léegi li des léegi ci ci wàllum dund gi. Mhm. donte Macky Sall def na li nga xamante ni xam nga. waaw yore nu réewam. léegi yéen askan bi troisième mandat bi. incha allah bu ci yàlla fekkee ak jàmm yow sa carte li est-ce que fas yéene nga yëge sa carte jox Macky Sall fi mu toll nii non bu ma amul courant moom waxuma Macky Sall sax mais du ma voté damay boycott. mais soo voté wul tamit carte bi tam ci moom la jëm. non parce que ñoom ñëpp laa yemale jamono bi ah ñun ba ñuy ba ñuy ba cam ba muy campagne euh, bokk nañ ci ñi ko dooleeloon suñu dëkk moo fay gañe chaque élection moo fay gañe ndax dañoo ne gën a jege gën a yey ñu yaakaare comme ni mu ñu jegee noonu bokk ak ñun benn raison lu laal ci raison bi rek waxuma biir Fatick mais lu laal ci raison bi rek day jag. xaw ma suñu dëkk xaw ma nu mu fa demee xaw ma xamu ko mais doy na waar parce que ñëw nañ fa samp ay poto def ay fil def lépp te ba léegi dara ñëwul man moom weddi naa ko moom. weddi oh, nga daal Macky Sall weddi naa yi. dernier kàddu yi xanaa di la jaajëfal rek di leen ñaanal seen bi nekk ba seen bi dem ba nekk télé bu mag a mag a mag a mag waaw euh, réew mi yëpp di ko seetaan waxuma réew mi samay diaspora bi yëpp bitim réew bi yëpp di ko seetaan. yéen a xam li ngeen bëgg yàlla na leen ko yàlla defal eh, nañ toppatoo jur gi nag fi mu toll nii dund bi dafa seer. non loolu moom adduna bi ñëpp a ngi koy jur. dafa seer dafa seer loo daw jëndee ko ration te ñun ay borom kër yu ndaw la ñaa ma gën a xam loo daw rek jox ko fas bi toog waaw. kon baax na yéen a ko dëgg kii mooy Ndof dawakatu sareet la Macky Sall gësul gars yi Macky Sall gësul borom sareet Macky Sall gësul askan bi Macky Sall nit ñaa ngi jooy nit ñaa ngi jooy ci wàllum dundu gu gi. kaddu askan bi nag nii la li leen neex ak leen naqar rek la ñuy wax ba beneen yoon